tëngërëm lañ leen di wax sa su nek rek ñi fo site internet di bus mtv Senegal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw ci seen xibaar <clears throat> daleen ak jàmm mbokki internet yi fo di setan bus mtv Senegal di leen jajeufal si and bi ngeen di and ak seen bi bu leen fàtte abonné bës cloche de notification bi su ko defé vidéo bu ñu duggal ngeen daal di ci mëna jot mom Alassane mi nga xamne nak activiste la Euh, doon yëkkati ay kàddu yoo xam ne nag taxoon na ñu daal di koy téye si kaso bi nekk mbir yu doy waar mu nekk loo xam ne nag dinañ ñëw def si jàngat yu ama am solo ñenn ñoo xam ne dañoo jàpp que ne comme dañoo nekkoon di xalamal wala boog di xeexal kii di président Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw ba ñu leen falee nag kon ñoom ñooñu dañ leen a war a gestu maanaam dañ leen a war a teg si anam yu baax ndax ñoom dañoo bokk ci xeex bi ba tax ñu bëgg a continuer yëkkatiwaat ay kàddu yoo xam ne tegginewul ba tax nag ñu daat leen yi te muy justice bi nga xam ne nag ñu ngi koy woote muy rupture bi nga xam ne nag jamono bi moom la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko woote te jàpp nañ ne jamono bii nag ñu ngi dox di si jëm am na ñu doon wax ka li ne woon moo fi ne ba léegi maanaam ku ànd ak ñoom duñ la jàpp waaye boo àndut ak ñoom ñu daat lay jàpp comme ni ñu ko gisee si kaaw imaam bi ak ki nga xam ne moo di ba jaxate waaye dafa mel lu ni mel gisuñu ko mbir mi daal ñëpp la ñu yemale amul kumba am ndey ak kumba amul bàyyi ñu bàyyi leen ak jàngat yi nga xam ne nag amal nañ ko si bala ñoo gën a guddal jaa ngeen jëf. Ah, lii moom vraiment euh, lii moom vraiment lii mooy vraie rupture ah, ah, lii de buñ ko continuer moom. jàpp naa ne justice bi aw na yoonu baax waaw parce que nag homme politique yi dañoo mën a protéger trop seeni nit parce que poste bi yow liñ ci bind mooy benn waaye bu tudd Alassane Fall di militant passif dafa am ku ko plainton plainte boobu nag tax na waa dig jëli ko parce que li mu def mooy dafa offensé ay juge ah waaw loolu moom vraiment c'est du premier ah, lii daal la ñuy xaar ci su réew mi lii la ñuy xaar ci ñu yore réew mi parce que lii la waxoon nit ñi nag ah, bu ñu commencé jàpp seeni nit c'est parce que dañoo def lu ko xamante ne du yoon wala yoon da koy tere su boobaa nag léegi réew mi jub bu boobaa képp ku ñu jàpp ku bokkul ci ñoom walla nga leen opposé bëgg a saag xam nga lii waxoon naa ko fi benn jour. Euh, su ma juumul sax maître kan mi mus nañ ci waxtaan man ak mom ma ko man su ma doon yeen yéen militant Pastef yi ñoom ñooy sacrifice wu def ay sacrifice pour rek ne se reste que euh pour rek ñu wone ben exemple def ay sacrifice def lu nga xamante ni ay injure la wala yenn affaire yi envers les autorités comme ça ñu japp leen tey leen voilà day nekk ñu siiw nga xam ni à partir de là dañuy wan Sénégalais yëpp ne leen gis ngeen. sagam ñun ñoo mën a jàpp suñuy militants yi ñu doon xeexal sa parce que dañoo def lu yoon nanguwul keneen ku ko fi def keneen ku ko fi def dinañ la jàpp tëj si nga loolu su amee comme li xew ci bax jaxateeg yooyu xam nga déglu naa léegi benn audio Abdou Cissé Abdou Cissé sax dafa mel ni Azura la waxtu mais dafa mel ni waa ji tuddul Azura kii keneen la parce que photo bi du photo Azura donc lii lii benn exemple la bu nga xamante ne nii euh, dafay parce que liñ fu yàgg xam mooy politiciens yi yow boo bokkee ci ñoom. soo defee dara dañ lay protéger mais ku bokkul ci ñoom bu defee duñ ko pro loolu moo fi yàgg xew tey buñ doon xool am na ci nguuru pees nguuru euh, président Abdoulaye Wade seen nit dañuy def lan neex du mujj fenn opposition buñ defee ñu tëj leen nguuru président Macky Sall aussi ah am na yow appareils yi nga xam dañ doon def loo xam du dëgg du yoon ñeneen buñ ko defee ñu tëj leen léegi nag ñii nañu bañ a def loolu te lii ma gis ni moom bu continuer léegi nit ñi respecté leen te lii moo tax sax opposition bi respecté leen ah. lii mooy tax opposition bi respecté leen ah lii mooy tax opposition bi respecté leen seeni nit bu ñu defee lu nga xamante ne yoonu réew mi da koo tere bu ñu leen protéger su ko defee parce que opposition bi ma gis <laughs> ben duñ leen may dara lañ doon def la ñuy bëgg a def te lañ doon def ñoom Macky da lañ cee bàyyi woon loolu Macky la bi mu demee ba sonn ci lay soo a commencé di xeex fekk c'est trop tard yoon mais réew institution dañ leen war respecté réew dañuy respecté loi yi e bu ñu demee ba amatul ku respecté loi mais loolu nekkatul réew quoi vraiment pour man. Medoune maa ngi lay delloo ziar frère maa lay bëgg lu bari Medoune waaw waa ji de man sax euh, video mii daal laa gis muy tourné ci panel yi quoi mais moom li mu wax ba ñu convoqué ko loolu déggoogu ma ko quoi dégloogu ko quoi après man li yëguma ko woon sax man ah après dinaa dem ci TikTok bi xool ba xam dinaa gis vidéo bi quoi wala Facebook.

voilà euh, lii mooy yoon waa Pastef wala boog nguur gu bees gi bu bu ñu bëggee régler euh, dëkk bi parce que Sonko déglu naa mu ni ay affaire u xasante beek waxante lu ñaaw leeg ay taxal nit ak ci lu dul dëgg ak yooyu loolu daf fiy jeex loolu fi muy njëkk nag mooy ci seeni militant lañ ko war a njëkk voilà waaw képp ku taxaw sax di attaqué ay ay autorité wala ngay attaqué yenn kilifa yi wala yenn nit ñi te tegoo ko ci yoon yoon woo la teg la ci yoon voilà même boo bokkee ci ñoom maanaam ñi bokk ci ñoom ci lañ war a njëkkee voilà même bu dee dañuy def benn théâtre sax benn benn film joué ko am ñu saaga wax lu bon ñu jàpp tëj su ko defee ñeneen ñi nga xam dañ leen war a opposé nañ xam ne kat ñii moom caaxaan nañu segam seeni militant la ñuy jàpp di tëj ah waxuma nag ñun ñi leen war a opposé su ko defee réew mi mën nañ dem ci benn politique ba nga xamante ne doom ay saagante ay parce vraiment loolu dañ ci sonn quoi ay xasanteeg menaces yi fii te su nga loolu buñ ko arrêté prison yi dañuy gën a fees rek ci ay ay ay petits ay coow yu ndaw yi te man vraiment man vraiment souhaité wu ma samay autorité ay nit bëgg a jël réew mi wala di opposé di leen saaga muy bu mu munti doon muy fi ma bokkoon nag ak ñu bees ñii parce que ni ma ko doon xeexee ci nguuru Macky man noonu laa noonu fii parce que ñii moom man pour man parti Pastef ak sen nguur gi ñoo gën a neex opposé donc jaruñu saaga xoolal bas Jaxate lay tey fee mu nekk ne prison boobu mais mais loolu wa appel ñoo ci perdre parce que boo nekkoon ci biti ak événement yi fi xawaat ni yépp mais da ciy live di wax su ko defee mu nekk attaque yu nga xamante ne day métti waa Pastef mais yow boo boo boo defee lu dul noonu bañ téye la mais yow mënatoo wax am na événement mais réew mi mi ngi dox ah, yow téye nañ la mënoo wax mënoo def dara mais te yow yow ñoom yow yow la ñu gën a yaakaar. mais réew mi mi ngi dox ah yow tey nañ la mais réew mi ngi dox ah. ah donc nag vraiment euh, nit ki mën nga opposé te doo def yenn yi quoi doo wax yenn yi vraiment man pour man politique boobu dafa war a jeex. waaw euh, beneen bi ci des dafa am benn remarque bu ma def dafa am benn seetlu bu mu def ci yenn ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci média yi di wax soit ñu nekk ci yenn support yi ci réseaux sociaux yi nga xam ni. soit dañuy nekk militant passif wala ñu nekk ay sympathisants wala seen yenn alliés yi nga xam ne dañ bokk seen coalition bi euh, wala sympathisants yi nga xam ne dañ nekk ay soi-disant chroniqueurs nekk ci télé yi di leen défendre loolu nag dama ko seetlu ci ñenn damay cité kenn rek caat bu yaanam maar xaw ma caat xaw ma kilifa kilifa laay wax du caat kilifa moom yooyu la koy def moom it ah, chaque jour bu waxee rek da nga naan kii est-ce que nekkul di di voilà di fàttali ne moom bokkoon na ci affaire bi. partage des gâteaux buñ ko fàtte loolu bari na ci ñooñu bari na ci ñoom du ñoom rek ah parce que ñoom bi ñu bi ñu bi ñu xeexee ba gagné maanaam ñi nekkoon ci xeex bi yëpp ci secteur yëpp nga xam ni euh, ci côté yëpp ci bran maanaam ci ci ci ñi nekk ci télé yi rajo yeeg ñi réseaux sociaux yi bari na ñu nga xamante ne ñi ngi identifié wu parce que booy bi li mu wax ni naan dugaloon nañ ma kaso mais yow bu ñu la dugalee kaso yow yaa waxoon da ngay def don de soi pour la patrie waa léegi ki wax ne dafay def don de soi pour la patrie mais kooku warul warul warul dem ba gagné victoire am ba pare di xalaat ay fayeeku non non il faut que yow ñu fay la rek yow dafa don de soi pour la patrie kon yow da nga doon def tontine voilà da nga doon jaay sa life pour une fois que ngeen gagné nga am sa partage di voilà ci gâteau bi mais don de soi pour la patrie du loolu len sen leader wooye woon loolu nag nit duko def ba paré di xalat ay looy fayeeku loolul fayeeku yow patrie bi nga don xéxal voilà militaires yi dem guerre sax des fois bu ñu jàppee seen ennemi duñu fayu dañ koy japp yóbbu ko juger ko <laughs> pourtant mënon nañ ko dorbal mu wàcc de mais dañuy préférer sax dem yóbbu le téyé le juger le atte la té ki ñuy juger dañ pen lay tëdd peine peut-être sax mu jeex ñu bàyyiwaat ko té pourtant koku da leen doon rey si voilà donc nag vraiment munoo def don de soi pour la patrie ba pare di di xalaat ay ay naan dañ maa tëjoo nag dañ maa defoon nii rek damay fayu noo fayu bu amee rek nekkatul woon don de pour la patrie man pour man voilà soit ngay ut poste wala nga naan da ngay fayu loolu nag yow kon li nga doon xeex du woon projet voilà puusal ma toog la woon il fallait ñu arrêté donc man je pense que lii maanaam lii benn benn lii lii lu bees la te dafa war a continuer Pastef ak coalition Diomaye wala président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko bu ñu bañee opposition bi di leen attaquer di saaga di leen wax lu bon di leen offenser di leen manque de respect si seeni militants la ñuy njëkk a bu buñ ko defee yeneen nit wala autorité ñu jàpp tëj loolu day tax kenn du leen ko ñemee def parce que ki mën a tëj militant mën a tëj njabootam yow mi bokkul ci mu boo ko defee du la protéger te fii ñun suñu réew xam nañ ni président de la dafa am pouvoir bu nga xamante ne am doole ba nga xamante ne bu ko neexee protéger ko neex te xew na ci nguur yëpp ñoom comme rupture la ñu wax nañ continuer ci lii.